asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 8 juillet 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay ba nag moom tey la mu xëy indi jàpp ne daal lamb ja moom loo ci mën a dégg moom sàjj fi mu nekk nii def na ko moom daal la ñuy ñaan kay mooy xanaa corona bi dem ak jàmm waaye daa mel ni daal corona bi moom bu demee li am ba des mooy lamb ja moom dana yëngu lool lool lool ndax la ko waral yëglikaay bi di sunu nee na jàppal Gris Bordeaux Balla Gaye numéro 2 boobu combat mu ngi ci kanam de xaar ko ak ban mu ne Eumeu Sène ak ki nga xam ne nii moo di la B52 de Mbour muy Bombardier ba tey boobu beneen la boo xam ne nii affiche bu mag la buy xaar Ama di mu Lô tamit mu nga tege di xaar bokk ci affiche yu mag a mag yi beneen boo xam ne tamit affiche la bu rëy rëy rëy toog di xaar mooy diggante ki nga xam ne nii mooy Siteu bu Lansar ak Papa Sow bu Parcelles Assainies moo tax sunu làmb jàpp ne daal li am ba des daal mooy bu bëggee dégg dëgg moom jàppal bu corona bi jeexee moom làmb ja dina yëngu ba yegg ci lool lool yëglikaay ba xëy tey ñëw wax nu ko waaye am na leneen loo xam ne nii moom xaw na leen a jaaxal wala mu xaw leen a tiital ci saison deux mille vingt jàpp deux mille vingt et un ndax nag lu toll ci ay cent arbitre wala lu ko jegeñ nu nar leen a dàq raje leen ne ca la jëm maanaam saison bi nga xam ne ni ca ñu jëm keneen koo xam ne nii moom mu nga xëy di wax muy Yaba Ndiaye Yaba Ndiaye nag ab promoteur la nekk ca Linguère moom daal la mu xëy di xam ne daal mooy maanaam président bii fi ne jiite làmb ji bu fi jógee moom ki fiy ñëw daal lay wax na nga xam ne ni noonu la war a taxawee wala boog la ñuy xaar ca moom leneen loo xam ne nii wala beneen wax boo xam ne ni moom coow la fi mu nekk nii ci dëkk bi mooy diggante rëg-rëg ak Sa Thiès mu mel ni ki nag tey sunu làmb xëy na dégg ci microm ay nit ñu joxe ci seen xalaat ka ca jëkk mooy Moustapha Thiam di Gaston nekk ci Africa 7 moom la mu jàpp moom ne na combat rëg-rëg ak Sa Thiès moo lu ka nga xam ne mooy Ibrahima Ndaw moom itam nekk ca Mbaaw FM moom la mu xam ne daal ne nag rëg-rëg fi mu nekk nii potentiel adversaire am moom itam Sa daal la gis Ibrahima jàll moom di pulo di ab photographe moom daal la mu jàpp daal jàpp ne na Tafatine day la jàpp ne moo mën a jaaxal ki nga xam ne moo di rëg-rëg wala boog moo ko indil mën a indil ay problème comme moom boobu combat la Papis Bey tamit moom it wax na ca de bi logique daal nee na du benn combat bu dul Sa Thiès rëg-rëg yaay Astou Fall itam dakaar banlieue moom it la mu gis daal Sa Thiès rëg-rëg daa mel ni moom tamit combat booba daal moom la gis yëglikaay bi di su làmb xëy tey def boobu jàngat wala boobu gëstu boog keneen koo xam ne nii yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom muy Ablaye jóob ak itam la nga xam ne nii mooy promoteur yi nga xam ne ñooy teg làmb simple ya te mu jiite leen mu mel ni kii nag léegi Ablaye Diop kon moo nekk au commande daal di commandé keneen koo xam ne nii moom ñëw na ci yëglikaay yi tey muy Yékini Junior moo xam sunu lamb la moo xam record la budee dee ca sunu lamb moom Yékini Junior la mu fa xam ne daal nee na pare na ngir jàmmarloo ak Boy ñang mu mel ni kii bu ñu demee ci record tamit waxam jooja mu ngi koy feddali nee na fondem boobu mu yor daal te ne koo bëgg ku ko naan nee na man pare naa ngir naan ko guy gi nag moom la mu ko jàppee moom Yékini Senior ca record nee na guy gi ab ragal la nee na daal bàkkaar la ñi ma wutal lekk sama avance ndax xam ne bu ko lekkee la ko cay fekk ki nga xam ne nii moom boobu ba tey ñu ngi wër ku lekk avance sam mu mel ni daa xaw a të bu dee am na bu dee dafa tëboog am na koo xam ne moom pare na ngir lekk ko muy ki nga xam ne moo di rëg-rëg ak avance am ba ñu wax ne ñu ngi koy wëre force bu faas daal ne na man pare naa buñ ma koy jox ma koy lekk tey itam daal ne na fi mu nekk nii moom man forsa pare naa ngir jàmmaarloo ak rëg-rëg loolu mu ngi ci kaay bi nga xam ne moo di record ba tey bu nu continuer ci record ka nga xam ne nii moom itam pare na muy Lac de Guiers numéro 2 ne na digganteem ak Tapha daal Lac ne na man pare naa jatu ni ab soccet ramas daal su ko bëggee ma jox ko ko ñu defante ba mu saf-sap loolu mooy li nga xam ne moo nekk ca record bu ñu demee ca Leewtoo point moom combat boo xam ne taxaw na muy diggante ka nga xam ne moo di Quench promoteur bu rëbës mel ni ki nag combat ba moom combat de déclassement daal la ko Aïssatou Faye tudde maanaam daal ko daan moom da ngay dem leneen loo xam ne ba tey mu ngi ci Leewtoo point net muy làmb ji nga xam ne ni corona bi taxawal na ko mu mel ni kii nag ca gëstoom day Kumba Faal daal la am ba des mooy bu bëggee dégg-dégg daal ca la ko na ko wax wala mu jële ca moom daal mooy la am ba des daal fi mu nekk ni moom mook njàmme ñu ngay liggéey ci li nga xam ne mooy après ki bi ak itam naka la ñuy def bu buñ ci jógee ñu xool mbir nu muy tegawaate ci aw yoon daal maanaam làmb ji mën a ñëw ak yeneen yoo xam ne war nañ koo lijjanti mel ni ki fi mu nekk nii loola moo nekk ab lijjanti li nga xam ne nii moom la ñu war a lijjanti te ñaan ko sax laay wax mooy réew mi nga xam ne moo di Sénégal yàlla na ko yàlla mu cël ci lépp loo xam ne nii musiba la ak balaa ak aw ay waaye muccal ci àddina bi bu ne Sénégal nag daal fi la nu yeewoo yàgg maar te li nu fiy dégg moom maanaam dafa doy ci kilifa yoo xam ne dañ leen a dénk ne leen kaay leen doxal ñoom duñ fi nekk leen lu dul weerante saagante ak waxante lu ñaaw te defe naa nekkul woon ne loolu la ñuy xaar ci yéen waaye lañ leen di xamal nag mooy ñoom nañu jàpp ne ñun ñi leen dénk ñàkkunu fulla daa fekk ni réew mi nag dafa bëri teggin yar bëri orma waaye jàpp naa ne ragal moom nekku fi. Leewtoo TV di leen nuyu sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène ñu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay ah ndey Kumba Fall. <laughs> yaay de faaw nga reetaan sa bopp du mën a ñàkk comme nag maa bëgg a forcer ñaari micro yëpp ma wax ci. boo ma ko waxee tam boo ma ko joxee ma wax si ñaari yëpp daal mais loo ci mënut a dégg ziar mbaa am nga jàmm. <laughs> maa ngi am jàmm lu wér. noo fanaanoo. jàmm rek waaw yàlla baax na <laughs> yàlla baax na. di ñëw nag si jàngatu eh, arène bi ñu commencé que nag ak sunu laam sunu laam nag moom xëy dafa tey dafa xëy ne làmb ji sàjj na ginnaaw nag bu ñu taxawlee combat Gris Bordeaux Balla Gaye Eumeu seen ak Bombardier Modou Lô Ama Baldé Siteu Papa Sow Babacar. waaw mu mel ni noonu mu ko xëy waxee moom làmb ji moom incha allahu rabi yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñu fekk ko tal ko bu corona bi jeex ak jàmm moom dina yëngu trop parce que li tax mooy combat yi nga xam ne moom lañ moo taxaw ñu koy xaar. yaa ngi dégg muy giri la ku ne xam na ne boobu revanche day metti day xat Eumeu Sène Bombardier revanche buy metti buy xat la waaye Modou Lo Ama Baldé nekk baa jànq boo xam ne tamit enjeu roi des arènes dafay ñëw daal di fay toog Siteu Papa Sow combat la boo xam ne ni ñoom ku ci ne la nga jóge moo tax bëggoo caa dellu muy defet mm. moo tax nga xam ne daal buñ fi yàlla bàyyi ak jàmm corona ji ak jàmm ah lamb ji waxuma la sàjjak yëngu waaye dana yëngu ba yegg ci lool lool <laughs> sans compter neen affiche yi des nag ndax bëri na yu des a des mm. te bul fàtte ne Quench ak Diène Kaïré ak ki nga xam ne nii moom mooy double moteur ñu ngi ci suuf mm-hmm. ak gis nga ku mel ni Jibi Njaay fan yi li muy taxawal <laughs> waa Gibson production <laughs> ay giri de rek rek loolu lépp giri de ak Abdou Diouf waaw loolu lépp ay affiche yoo xam ne nii ah yàlla nañ fi yàlla bàyyi daal corona moom dina dem insha allahu rabbi bi <laughs> waaw. Babacar nag di ñëw nag si arbitre ginnaaw bu nu rajee seen président muy Sitor Ndour arbitre nag ñoom la ñu gis nee nañu fii ak nee nañu mën nañu 100 arbit yoo xam ne dafa mel ni CNG daal arbitre yëpp la rajee ginnaaw bu nu rajee seen président. Mm. tamit si làmb ji sàjjee moom <laughs> làmb ji dina xaw a doy waar 100 moom bu ñu rajee ñëm moom <laughs> ah bu làmb jubee tamit mën na indi ay jafe mais la solo daal mooy que ni raje boobu yooyu yëpp am na ba am waaye li ci des mooy. Euh, olof ne na bu dañ ne bu ndox turoo ne an baax a des ñu ne déedéet nañu rootiwaat rootiwaat moo war mooy lan ñu toog waxtaan xam nga jéem a xool mbirum arbitre yooyu nuñ koy régler ba nga xam ne nii mbir yi dina ñëwaat en normal ñu a li li ñu jàpp ne loolu mooy condition bi nga xam ne ci la nit ki war a nekk suy liggéey mm-hmm. waaw keneen ki nga xam ne moom tamit bëgg na bokk si làmb ji ji moom mooy Yékini Junior moom daal nee na génn daal bu bëree ki nga xam ne mooy Boy Niang waaw moom day loolu la wax moom daal nee na fi mu nekk nii Boy Niang daal la la la gis waaw loolu nag am na si droit am na droit dëkkan parce que làmb moo tëdde noonu parce que boo xoolee ñoom ñaar bokk nañu adversaire muy Lac de Guiers numéro 2 te ku ci ne da nga kon yaakaar naa ne tey am na droit taxaw ne Boy Niang laa bëgg a bëreel Boy itam moom mooy choisir rek

bëri na ay xar yaa ku mel ne Habib fexe leen ñun ñu am ay xar comme ndakaaru xar dafay seer waaye yaba daal la mu wax moom li am solo mooy que kii ñëw ëllëg la xaar ci mu leen war a taxawoo loolu nag defe dañ ne lépp mën ta mat en cent pour loo ci mën a dégg liggéey na muy docteur Alioune Sarr ak équipe am ëllëg na fi jógee bu fi jógee ci jàmm tamit bàyyi ñu ci jàmm waaye bu keroogee ñaan nañ ko fii ñëw tamit fi defoon ndax la ñuy xaar ci yow ci xam ne mooy record record dafa xay dalal si xalima Abou Nour ki nga xam ni moom mooy Lac de la Lac de daal nee na pare na bu jox ki nga xam ne mooy Tapha Tine ginnaaw bu mu ko daanee woon ci CLAF 2007. waaw looloo war a am loolu moom du combat boo xam ne ni sax dañ naan 1 2 3 déedéet combat la boo xam ne la 1 plus 1 égale 2 la Lac de ak ki nga xam ne mooy Tapha loolu amul amul amul ma dem te ñëw. amul muskil amul kenn ci mënu koo moytu <laughs> parce que du ay raison yooyu teg ba mën koo moytu. Mm. Lac de Guiers amul raison yu muy teg a moytu Tapha Tine Tapha Tine amul raison yu muy teg euh, kon 1 plus 1 égale 2 mooy Lac de Guiers ak ki xam ne nii mooy Tapha Tine la. waaw keneen ki nga xam nag moom ginnaaw mu waxee sunu lamb nee moom pare na pour bëre ki nga xam ne moom mooy Boy dafa ñëw na si record nee moom tamit ba pare na pour bëre ki nga xam ne mu nga sunu lamb mu nga record waaw nee daal Gouye Gui sax est ce que jàppal sa Gouye Gui ragal moom day <laughs> dina sax Gouye Gui ah waaye est ce que Gouye Gui da koo ragal Yékini Junior doy na waar Papa Ndiaye ah <laughs>

amal na ko muy Forza Forza daal moom lu ma gis moom daal moom rek moo mën a arrêté ki nga xam ne moom mooy Reug Reug waaw moom loolu la wax de nee na moom daal moo yor li koy arrêté waaw kon defe naa ñoom tamit seen combat boobu ba tey am na ñu koy wax mm-hmm. naan Forza ak Reug Reug te defe naa itam war nañu mën a laale ah waaw combat bu neex la ku ko tëgg itam da ngay am làmb ju neex a neex ndax ñaari ancien équipe nationale lañu ñaari mbiru lit simple lañu mm-hmm. te itam maanaam mën ngaa xeex kon defe naa ne ko ko tëggit da nga gis combat bu neex te li ci doy waar mooy rëg-rëg biir face la jëkk daan ki nga xam ne ni mooy Gris 2 di rakki Forza mhm. waaw ki nga xam ne moo damay wax tamit si journal bu record muy Ablaye Diop nouveau président euh, association du simple moom daal lu ma gis daal mooy neen daal la ñëpp euh, booloo nekk benn daal pour bañ a am ay réeroo si seen biir waaw loolu de mooy tax mbir dem maanaam booloo nekk benn ne xalaat yi mën na bañ a doon benn waaye nag xol yi doon benn rek xalaat nag mooy nga ne lii ma ne lii yàgg ne lii kii ne lii mais bu ñu paree ñu fexe lépp ñu tënk la ca baax def ko loolu nag li koy indi mooy xol yu xol yu xol yu yu yéenente jàmm mm. yaa ngi dégg ba pare tamit tey waxante dëgg mm. ndax dëgg itam foo ko toxal mën na indi ay dégâts yaa ngi dégg nañuy waxante dëgg et puis itam moytu fexeelante loolu tamit lu garaaw a garaaw la maanaam complot loolu nag ko nit ñi moytu bokk na tey li gën a indi problème ci réew mi nu ne muy Sénégal mooy complot complot musiba la ay sa fay wala ndey Koumba Fall wala Yàgg Mar wala Babacar ñoom ñu complot rek ne Aïda Diouf na fi jóge mm. yooyu dafa dangereux coow yi ngay dégg la plupart boo ko toppee ba ci biir a biir la koy indi mooy complot complot nag pour man boroom fit du ko def nit ki boo amee loo ko wax da ko koy adressé mu dégg ko mm. Euh, Babacar nag suñ jógee si record nañ dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net moom si euh, xalima Aïcha Faye madame Nia mi ngi xamal ne ki nga xam ne combat bi euh, digg bu dox si diggante Quench ak double moteur nee daal combat déclassement la waaw lu ama am la de déclassement la de ñoom ñaar ku ci daan da nga yokk ay paade waaw parce que ñaari xale lañ yoo xam ne nii code de popularité am nañ ko te ay mbër waara lañu macha allah ba ba ñëwee ci làmb ji ba tey ñu ngi wane seen bopp su ma juumul ñoom ñaar ku ci ne benn defet nga am kon yaakaar naa ne ñooñu moom Baba Jaw la Youssou Ndour waxoon Aziz laa koy waxal rek Baba juumoo de combat dëgg la tëgg <laughs> beneen euh, bu nekk tamit si leewtoo point net mooy euh, ki nga xam ne mooy euh, CNG mi ngi prépare daal di waajal ubbite saison bi wala boog am leen si yaakaar après tabaski daal lépp dina leer parce que ki nga xam ne mooy Thiernoka chargé premier vice président chargé de la lutte avec frappe moom daal nee bi Mbaye Diop ñu ngi liggéey daal si ay dossier comme daal xam xam na am na yaakaar daal nit ñi daañu delluwaat si làmb ji Babacar. waaw loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def parce que bëgg nañ si kàttan suñu borom bu ñu fi yàlla bàyyi bu ñu tëbës ba pare corona bi mais bi bagaasam dem ñu mën a delluwaat ci activité nu nekkoon réew mi yëpp waxuma sax làmb mais lépp luy activité rek te xaw na am lu ko freiné mu mën ñu mën ci delluwaat te loolu am nañ yàqin ne incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mais soo nuyu ñoom Mame Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ne moom mooy Grand Fallou Asek yaa ngi si biir Chéri Khoudia Seck yaa ngi si biir nuyu aussi Abdou Gueye euh, Baye Fallou Diamagal euh, depuis États-Unis euh, yaa ngi si biir Papa Sita di nuyu aussi ki nga xam ni moom mooy Ramos Ndiaye. waaw maa ngi nuyu ñëpp tamit comme noonu nga ko waxee di nuyu ab Guèye moom mu ngay nuyu toujours ñu ngi koy nuyu Baye Fallou jàmm gën nga wax ba <laughs> Baye Sita Ramos tam ñu ngi koy nuyu waaye super jamono Malick mbay di mbër nekk cëpp Italie maa ngi koy nuyu di nuyu jabaram Roberta ah Roberta maa ngi lay nuyu wala ma ne ko wala ma ne waa italienne la saluti ah saluti Roberta madame mbay maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit Lirou Diane Lirou Diane ca États-Unis d'Amérique New l'américain bi doomu géejawaay bi monument géejawaay bi maa ngi lay béggee bu baax a baax liiru doomu bawal bi ndax altu ndaangal ma la dëkk kon liiru maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu suivre à travers le monde xam nga ñu mel ni champion yi ne ci bitim ay ñoom fëgala mu nga États-Unis ay Bazoka ñoom ñëpp. même Bombardier guy gi Abdou Diouf. Ah, ñoom ñëpp ñu leen di nuyu. yaa ngi dégg képp ku ñuy suivre daal ñu ngi lay nuyu encore une fois ak foo mën a nekk rek si àddina bi parce que olof a ko wax rek xati pittaxay mbokkam ndax ñoo bokkam yéen. waaw non ñooñu moom ñooñu ci man lañ bokk ñooñu. ñooñu ñooy man maay ñoom. xam nga tuuti ak aasi moom sama tuuti lañ ak sama aasi bu mën a ñàkk aasi bu xarañ loo tuuti yaay saar bu géej way ñoom ñaar maa leen di bégee aasi mu nga ca Mauritanie ak sot naar bu yiw boobu macha allah maa ngi koy di nuyu kullu naar di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yow saa yu ma xëyee nuyu la xanaa nuyoo kay mën ta dépassé ni ci jàmm ba suba incha